préparé ak samay jori ma yag leena wër nak waaw tay nak tassé nan quoi ah wiri wiri jaari ndari <gasps> ngeen do war xam xam di dul tamit euh oh, tay nak ma ngi tassé ak sama patron hat euh oh, ak yenen gaay ak uh, señ cheikh sey maçon borom kër mbay fall euh di ay jeurin yo nga xamanteni ci liggéey bi ay jambar lañ ku nek xamna seen liggéey ci ouvrier mason di ay entrepreneur di ay ingénieur di di ko teg ci yoon daal sëñ Abdou Lahad maa jox la nga nuyoo ba pare après ñu wéyal liggéey bi. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu sama mbokk yi fi daje mbokki ouvrier yi maa ngi nuyu ñëpp rek di leen ziar waaw di leen jox seen wàccuwaay bu baax nag waaw sëñ Gora bisimilah. di am mbégte ak kontaante bu baax baax ci Darou Bakhoum TV. Euh, fofu lañu amalé émission bi euh tay bisub gam la tay lan nga yek tay mom ñongi bisub sante la sax ndax ñongi sante yalla bu baax di am contante ak mbégte trop ndax dëgg yalla biñ fi ñëw ba léegi ñoo top ñuy top to mar sëkk dara manki wut ta guddig gi rek guddig yonante bi la wax yalla mom ñongi sante euh seigne Cheikh sey yow tamit di la ziaré bu baax euh, vraiment gis nañ sey liggéey. Euh, donte talibé la sax bu nek ci yoon wi di ouvrier di jang métier waye dal say bâtiment dama koy romb en chaque fois mais muy liggéey bu set lo nga xamanteni ni zone genre gi war nga leena tek loxo ma ngi lay ziar ma bàyyi la nga nuyo après ñu doxal ba ci kan alaykum wa daru baxam tv du nuy sen njit aladi ñu ngi koy di leen bëgge du nuy wa annonce chat ba chat ouvrier yépp ma leen nuyu maçon coffreur ferraille yëpp maa ngi nuyu cat ba cat bisimilah. deemaat mbégte kontaan bu baax a baax euh, tey bisub gàmm la yaa ngi Daaru Baaxum euh, chaîne bi ngay waxe tey mooy Daaru Baaxum TV tey bisub gàmm la nawet bi metti na pour yoon bi euh, tey liggéeyu nawet xam nga ni ouvrier maçon dox bi taxul ñu ni loolu quoi waaw nan nga dunde yoon bi. bi Daaru Baaxum TV. Ah, yoon moom sant rek. gàmm moom boo ko déggee mooy ngëneel la mooy sant rek sant yàlla fekk bi ñu ko fekkee di jaale seen mbokk ouvrier yi bâtiment bi daanu Zac Mbao ñu ngi leen di jaale ñoom ñëpp yàlla yàlla xare àjjana te yeexee ñu ndax bâtiment moom moo demee noonu ku nekk fu la yàlla yemalee rek xam foog nga yem ñu ngi leen di seen i mbokk ñoom ñëpp yàlla leen yàlla xare àjjana te yeexee ñu guddi gàmm lañu wax muy guddi yonent bi yàlla nga fekk ay déwén déwén wa yalla mën nako yalla yàlla ko yàlla def. waaw di amane bekté kon ni ngi ko dan waxé rek euh tay nak suñu patron lañ togal euh, euh euh waaw yenen gaay yaa ci wét gi tour bi euh sëñ Ablaye Ndour mi ci wét gi mom tamit ak euh, sama chainer bi nar bu ñuul ak euh, sëñ Cheikh sëñ Ablaye ma ngi ziar. assalamu ah, alaykum ma sant yalla jël ci yenen bi ñi ngi sant ñëpp. di sant Daaru Bakhoum TV moom initiative bu rafet la quoi ñu leen sant leen gërëm di wax ñaan yàlla def tawféex rek jaamu sonal ñun ñëpp ak kontaan nañ ci quoi jaajëf. deemaan mbég de kontaante bu baax a baax nan nga dundee yoon wi di ngay gàmmu si yaa ngi jóge ba fan dakaar Dakar moom yoon bi métti na boo jaaree Thiès yaa ngi tase ak embouteillage bi boo jaaree yoon bi tamit yoon bi neexul bari na ay secouche mais nag euh, guddi gi jar na ko. lan nga yëg ci guddi gi waajtaay bi. waaw ah, incha allah daanaka li ma bëggoon wax rek yow wax nga ko guddi gi jar na ko parce que Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guddeem la mooy bis bi la judd la gane àdduna waaw ah, jar na ko quoi même su fekkoon nañuy jaar ci géej di dem sax jar na ko quoi parce que moom mooy gën gi mbindéef moo tax ñu sàq mooy borom lépp daal ah, kontaan nañ daal te guddi gi am na solo gars yi toppatoo nañu dara manqué wul quoi xéwal yi doy na macha allah yàlla ñu ko fekk ay déwénat déwén yàlla baax na incha allah. Euh, ñu jublu ci naar bu ñuul quoi naar bu ñuul nag duma leen ko présenté ku ne xam na ni euh, waxtaanu maçon moom ataay mënu ci ñàkk. comme que sànce la ñu nekk di caayin tànk sa ndox bëgg a sangu ji xelli loolu ba pare doog di dem sangu ji <laughs> dafa bokk ci ñun. naar bu ñuul euh, yow ci sànce yi ngay yëngu yow tamit lan ngay dund ci sànce yi daal lan nga xa lan nga yëg ci sànce yi loo nga xamante ni lu la motivé la loo nga xamante ni yokk na sa jom ba. donte amoon nga métier sax waaye da nga koo tegee en côté euh, ni sanc yi quoi lan nga yëg ak ouvrier yi ngay liggéey. waaw salaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu leen di saa ñëpp mbokk ouvrier yi ñu leen di ñëpp di leen jox seen màccuwaay waaw. waaw chantier moom liggéey sanc moom liggéey boo xamante ne la moom maanaam senegal restau dañu ouvrier yi quoi moom senegal moom liggéey chantier te ouvrier moom lañu ñu waroon gën a njëkk a respecté sax Sénégal fii nii booy xool. ndax kër gu taxaw moom ouvrier ñoo ko taxawal waaw balaa ngaa xalaat kër ouvrier nga njëkk a womb sampala sa kër kon maanaam a nañoo jox ouvrier seen maanaam seen gëdd seen wàll si chantier yi jox neex yàlla jox leen seen wàll si chantier yi daal ouvrier yi ndax ñu jotee woon nañu ko daal waaw nag ñu ngi sant yàlla bu baax ndax ndax moom liggéeyu liggéeyu chantier moom waaw dimbali nañu si bu baax dimbali nañu bu baax si liggéeyu chantier moom dimbali nañu bu baax ndax mu ñu fàttal suñu ay suñu ay soxla yu bëri mu ñu koy fajal waaw yàlla def na yàqaruñu si kenn si dara duñu xaar kenn si lenn waaw ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. aman mbégte kontaan bu baax a baax ñu jublu sëñ Cheikh moom moo taxaw place euh, naar bu ñuul bu naar bu ñuul defalee lawal moom mooy defar deuxième bi euh, sëñ Cheikh lan nga yëg tey ci émission bi tey ñu jagleel ko ouvrier yi maçon yi euh, ñu war a waxtaane lu bëri parce que boo xoolee maçon Sénégal fii liñ ci war a dolliwaat bëri na donte njàngin mi rafet na travaux yi tamit ku ci liggéey ba bàyyi nga nga nga nga signé waaye lan ngay dolli ouvrier Sénégal na maçon en tant que jeune boo nga xamante ni comme ay ndaw yu bëri ñëw jóg di bëgg a jàng métier boo laajee ban métier nga bëgg ñu ni maçon euh, muy liggéey bu metti waaye nag borom jom moo koy def euh, parce que ndaw yi ngay gis fekk suñ patron alaaji bo ñëwee fofu ba gis xalé yi ni ñu takko ak bu ne kan mo fi jitu ful la jiñ ci def ak fayda jiñ ci def jaayante ko pour jang métier rek jaral leen lu nekk euh, yow dafa melni am nga ci xam-xam bobu tay dund nga xalé yi war nga xam li nekk ci ñom lan nga tay assalamu alaykum wa rahmatullah daru baxum TV ma ngi leen di nuyu man Cheikh jeng ci sen tour ak sen sante di rafetlu sen liggey sa su nekk. Euh, heure bu ñëwee si lu mel ni gàmm wala lu mel ni événement tabaski beeg yu ni mel li Darou Bakhoum TV di euh, fësal di ko doxal di ko wane ci àdduna yëpp ñëpp tekki seen bët mu am solo lool fa tabaarakallaahu ñu leen di ñaanal rek saa borom dooli leen ay tawféex ci barke guddig yonent yàlla Muhammad bi sallallahu alayhi wa lépp lu ngeen ci bëgg rek saa defal leen ko seen dëppoo li gën si yéen sa gën ci yeen barke Cheikh Mor Faasa Bakhoum di leen nuyuwaat baax a baax di leen siyaare kenn ku si nekk turam ak santam di jiital nuyoo bi sin Alaaji Jeng ak équipe bi mu àndal yëpp ñew fi ni ak euh, mbolam Baye Fall bi and ñew tew fi ki daaru baxum di leen nuyu di leen sante di leen gërëm bu baaxa baax bu loolu wéso nak ci walu ouvrier que ni nekk na liggéey bu metti liggéey bo xam tamit risque la ba paré tamit ndeysaan ndeysaanu trop tamit vraiment da bo togué un mois di liggéey nga tok ñaari fan liggéey rek ñetti fan dang koy commencé yépp mu nekk liggéey bo xam dal képp ko xam dal yaangi jëflanté ci walu ouvrier di di jàppale bu baax a baax a baax di leen teg loxo ci xam ne doo bàyyi ndey bàyyi bàyyi ay soxna wala bàyyi yu ni mel bëgg lu am rek àdduna nag xëy na moom moo demee noonu kenn ku ci ne ci la ngay yëngu rek ci lan yaa suñu borom di teg ay natt ñooñu nga xam yàlla teg na leen ay natt bu wàcc seen kaw gi sax mbaaw ñu ngi leen di yokk ko saa borom defal leen jéggal xaar leen àjjana firdaws ci barke bisub yàlla yonent yàlla moo xam sallallahu alayhi wa sallam di ko rafetlu bu baax a baax a baax fa tabaarakallaahu jërëjëf di la sant di la gërëm euh, bala ñuy avancé ci waxtaan bi dañuy rendre hommage euh, ñi nga xamante ni ñoo wàcc ci bâtiment boobu di Sipres Zac mbaaw euh, wax ji bëri na liggéey bi jaarul yoon waroon nañ ko defee nii waroon nañ ko defee nii waaye ku nekk xam na ni ku bàyyi sa kër ñëw nekk ci bâtiment di ci xëy di ca gont bëggoo mu demee noonu ni mu demee noonu waaye nag jaam ak yàlla ak fi yàlla tudde sa dee mënoo ko mënoo ko romb dañ ni sa bisu dee boo ko naree romb sa dee ñaaw kon nag nañ leen ñaanal yàlla xaaral leen aljanna yaa yàlla way fa suuf seen kaw te yeex ñu fi ci jihaad leen dee parce que deewuñ ciy caaxaan dañ doon daan seen doole ba bâtiment bi wàcc seen kaw kon nag li ñu def rek mooy ñaanal leen tey di maytloo suñ mbokki maçon yi ku nekk xam na ni bâtiment mënul taxaw dir bu yag nga ñew rek ben jour nga jël ben côté bi euh, bu doon 15 sur 10 150 mètres carrés nga jël 15 bi yépp nga bëgg dag ay ay mur ni dang fay fay wat ay simel lolu en tant que professionnel euh, dina ci wax ma ngi ak sama gaay ci gënaaw xamna ni ñom dinañ ci addu euh, fot la mais nag ndogalu yalla la dal waaw nañ ko sante yalla ñaanal leen yalla xaar leen aljana woyofal souf sen kaw te fi ñu han euh ouvrier Senegal fi di maçon euh, liñ ci liñ ci ñaxtu bari lol ñi da ngay dégg khalis maçon du taxaw khalis maçon du taxaw day wax fo mu wax xaalisu maçon du taxaw lan nga dundé lol en tant que entrepreneur nga yëngu ci bâtiment di liggéey jël bâtiment bu nek man d'accord na débutant nga jël première deuxième troisième mais quatrième moom max pré waroo waroo daanu ko pour man en tant que intellectuel ci bâtiment ba ni xaalisu maçon du taxaw lan nga yëgee noonu lan nga dundee bâtiment ak xaalisu maçon du taxaw ansu billaahi na seytaani rajim loolu moom fit boroom fit moo koy def koo xamante ne am na fit moo koy def te moom bëgg na lu muy def bëgg na lu muy def moo tax dina si am lu nekk mais ndaw moom bu nekk si liggéey moom bu mu na jàpp rek dëggam loolu moo laa koy encouragé. yow suñ laat euh, faaw nga parce que question bi euh, rafetal na ko waaye nag tontuwuma wu nan nga yëgee que ne en tant que intellectuel ci bâtiment euh, d'accord naa débutant première deuxième mën naa la ko may ba ci troisième mais quatrième. nga récupérer ko santé fondation à 450 000 à 500 000 ba 600 000 ba 800 sax da koy am fondation euh, ça n'est pas parce que dañuy def euh, fondation euh, r plus 3 r 4 te yoy bu ci amé rek liguey yaa ngi wante ci parce que liguey R 1 R 2 R plus 4 ce n'est pas la même chose bokkuñu ay sont bokkuñu ay liguey léegi en tant qu'intellectuel, nga jël trois fois wala quatre ci fondation rek quatrième fois nga jëlat jël première perte jël deuxième perte jël troisième perte ba ci quatrième nga perte en tant que intellectuel euh, nan nga dund lolu ñi wax xaliss ma son do taxaw wa lolu lolu boko gisé en général moy ñi nga xamni ñak nañ expérience ci walum liggéey bar na ñoo xam dañuy jël dañuy engager té lañu engager maîtriser wuñ ko xamuñu ko mënuñu ko waaw ndax fii booy xool dëkk bi bari na ñoo xam ne ay minebar lañ te dañuy dañuy jël engagement ma maçon te ñoo ñooy indi erreur yi bari ci chantier liggéey boo ko joxee ku ko mënul rek nga gis si lu la naqari liggéey loo ji rek am na ku ko man te nit ki li mën da koy da ciy sawar kontaan ci ba bu koy def bu tuddoon di nelaw sax boo ko yee day xam ne li muy def mën na ko mais boo fekkee ku ku ko jàngut xamu ko nga jox ko loo cay fekk yaa ko teg ñoo ñu bëri nag en ñoo ji liggéey pare dem ba ci biir duñu mën a dem wala ñu am borom kër gi wala ñuy jël ay ouvrier dinaa leen xaar leen xaar leen tey suba ginnaaw suba yooyu waaw mais liggéey ñi ci am expérience dëgg duñ ci liggéey di daano ah man de man laa ko de nit mosut ma taxu di ma fa yow yow xam nga ma nit mosut taxu ñëw suma kër di ma fa yow te damay jël ay nit di leen liggéey loo ñu bëri xam nañ ma waaw boo gisee ñu bari di jël engagement di daanu rek xam ne du maçon wala du nekkul maçon boo xam ne yàgg na ci chantier wala xam na expérience chantier waaw si comme comme si li nga li nga wax noonu noonu maanaam dama am ci yeneen laaj yoo xam ne dafa dafa dafa dëppoog lu mel noonu maanaam pourquoi pas ñi nga xam te ni ñoo nekk ñoo ñoo ŋànk ñooy maçon yi ak képp koo xam te ni maçon nga da ngay engagé ay chantier pourquoi pas ñoo def benn genre association boo xam te ni képp koo xam te ni dangay jël batiment wala ñu lay jox te yow li ñu la jox nii saytu maam association boobu saytu lay tudd saytu lay doon quoi ngay saytu bâtiment maanaam kuréel boo xam te ni képp koo xam ne da ngay joxe change fa ngay jaar ndax loolu dafa nekk loo xam te ni su bëri fóot yu bëri du noonu la da ngay gis ay yoo xam te ni mën naa ne am na ñoo xam ne xamuñu sax peel ni ñu koy jikkitee mos ñoo dem si ciment taquñu si laaluñu si mais li ñu am si change ah ñi nga xam te ni dañoo jàng seen métier ba man ko sax ñoom duñ ko am te pour te pourtant ñoom ñu rek ñoo si gàncax gi dañuy yabal ay bi dañuy leen jox benn bâtiment ñu modifié ko bu ñu ko modifié dañ ciy def loo xam te ni bâtiment bi mën na garanti mais lem mu noonu li mu waroon a garanti du ko garanti waaw moom loolu soo mbokk maçon laa koy laaj quoi léegi loolu nan lañ ko mën a réglé ndax bâtiment bu demee ba daanu war nañoo mën a xom bâtiment bi lan moo ko daaneel ndax si liggéey bi la wala soit am na ñoo xam ne dañoo ñëw di ko defar defaraat ndax am na maçon am na bâtiment yoo xam ni trente maçon ñoo koy xëy ñoo koy liggéey maçon bu ko xëy liggéey bu subaa keneen ñëw liggéey ko beneen bu subaa keneen ñëw liggéey ko te du bokk. te liggéey duñ doon benn jafe-jafe yooyu noonu da ci am xam naa da ngeen ma léegi nii. waaw canta ngërëm ñeen la waaye nag dañu am suñu patron ci gannaaw euh, donte ouvrier la mais nag samay jëwriñ a ñëw tey tey li ngay wax nii moom sama xam-xam da cee lot baal ma bàyyi ko jëwriñ bi ci gannaaw du dégg nga question bi euh, modification batiment bari na euh, ma ñi jóg tamit nii ay entrepreneur lañ ñi jóg ni ay ingénieur lañ bari nañ. Euh, sama genre gi euh, trois jours lay te turel tabax te trois jours raax téye trois jours finition rek engagé bâtiment euh, ci qualité liggéey yooyu noonu nañ lañ mën a def ba nga xamante ni tey comme ni mu ko waxee waa mën na fi jóge ba tey association la wax moom boo nga xamante ni boo bëggee joxe liggéey foofu ngay jaar foofu nga jaar na ñoom ñoo lay tànnal maçon qualification après teg la ci loxoom après mën a doxal sa liggéey pour sa liggéey am sécurité nan nga dundul ak ban xalaat nga ci am yow. waa jëwri ñoo lay siyaare waat di la bëggewaat question bu mu pose bu am solo la xam association moom bëri na léegi fu mu toll nii si maçon yi maçon yi am na association coiffeur yi ferraille yëpp am na association waa boole bi mooy problème bi. beneen bi su teg bâtiment yi daanu yëpp lu koy war a en général détails yi ñàkk fayal la mooy ciment bu saful fer bu baaxul ndax tey mënoo jël benn fondation 15. nga bëgg a teg R plus 2 mënul nekk wala nga bëgg a ah, fondation boo xam ne ni première la yam nga bëgg a teg troisième wala quatrième mënul nekk day wàcc ndax suuf gi bu fa darul nekku laa mel ne nit rek nit fii bu darul nekkul rek da ngay sëgg bâtiment noonu lay doxee te bâtiment fu mu toll ni mooy am na émission moo defoon temps yi passé na màgg tabax ñoo fi bëri mooy da ngay miné baru 3 mois 4 mois xëy na na maçon nga yaay ëpp sax wërsëg ki jàng métier ay ati at te loolu pour mu jógee fi xam nga lan moo ko a mën a dindi état bi rek moo ko mën a dindi keneen mënu ko dindi tey maçon bu jël chantier daanu daanu maçon mën a jël sance chaque jour di daanu xanaa xamoo lool xam nga la moo tax muy daanu du def calcul comme tey xam nga journée maçon yi dafa yokk am na journée maçon yoo xam ne 10 000 pour raax am na journée maçon yoo xam am na journée xam ne 6 000 la tey exemple boo jëlee chantier 100 000 francs 100 francs yooyu noonu nga lay fay maçon journée 6 000 francs manœuvre 3 500 tey journée bi am na nu muy yokkoo rek yow da ngay am problème ndax yow def nga sa calcul ba pare fekk mu nga def mooy 6000 francs nga calculer manœuvre 3500 léegi fekkee 6000 francs calcul nga dem moson bi na 7000 wala 8000 pertement day commencé dugg encore suñu mbokk maçon yi sama classe dañuy jël avance boo xam ne nii moo ëpp doole te liggéey bi demagul fenn ndax tey bu ma waree am journée 7000 te maa gagné liggéey bi journée 7000 laa war a am waaye fekk naa yoo xam ko te lekk naa six mille ah sept mille yoo xam ne liggéeyumul tax ñu naan liggéey te sama sànc la kon problème day commencé am léegi loolu moo tax nag asa nga gis naa maçon maçon bi trian la wala nangam trian moom fépp la am nekkul si maçon yi rek dañoo yab maçon yi naan trian tous les ouvriers non non Sénégal yëpp président sax gën a mooy loolu yaa ma gën a xam comprendre xam nga maanaam ñun lañu yab weex dunk na maçon yi ay trian ay sàcc lañ nangam naan sàcc ñoo fi gën a bëri lenn nag dinaa nangu nga bor ouvrier ak ouvrier mënuñu ñàkk am problème waaw bu ñu amee problème problème bu mu yàgg ndax ku nekk day soxla morom bi te boor yi nii c'est force day am si bâtiment ndax soit borom kër gi da war jox xaalis wala soit nga dem ba si biir xaalis bi nga yaakaaroon wàññeeku na jotoo ko la mu jeex problème day commencé am waa nikki nag gars yi souvent lu may la message bi may laajte nii mooy gars yi liggéey journée am na ñoo xam amuñu compréhension man du ma la nëbb man dama siy xeex ba dugg voie vocale man du ma la jël sama chantier huit nga war a xëy si nga xëy dix heures sa simeeku rek une heure temps lay jël onze nga mën a simeeku nga bëgg a sol tën yi bëgg a liggéey balaa quatre nga na ngay wàcc xam nga loolu neexul si xol kon dèjà problème day commencé am foofu léegi waaj bu ko defee quatre jours cinq jours da nga koy fay la war a huit la war a xëy toog ba onze heures ñëw di simeeku trois heures et demi mu wàcc waaw kooku léegi après nan la war a def ak waaju ko jël xam nga coow day jë day day bari moo tax c'est force suñu métier day am coow coow mënul ñàkk SBT la ñëw na mënul ñàkk c'est fort beneen bi si topp mooy ñun moson yi ñoo war a bëggante soppante gëm man maçon laa gën a gëm kuy dox si kaw suuf man gëwuma keneen ku du maçon waa ñun maçon yi ñooy yàqante seen biir benn ñun maçon yi ñooy ñooy ñooy suufante seen biir wallaay aji man mosuma liggéey jël liggéey jaamu boo xam ne nii xam naa ko waa ñun moson yi dañ koy dañ koy def te loolu delloo ginnaaw rek ngay def dellu ginnaaw rek ngay def nga beneen bi si mooy dama la bëgg a xamal lu ndaw nga métier bi ñu nekk ni métier noble la Sénégal fii lépp dañ koy importe indi ko. daa ma sa gis ñi indi ko Sénégal foog gisee commencé beneen. ah di kontaan baax a baax waxati nga dëgg comme ni nga ko defoon ci émission bi passé euh, ouvrier yu bëri tamit euh, ci li sa wax man dama am lu ma ci jàngataat dans chaque fois ngay euh, journalier wu journée 7000 8000 ba 9000 sa moroomu ouvrier di la jël diir boobu dañ ci xonet xonet goo nga xamante ni ci li ma gis ci ay ouvrier quoi ba bu leen sànce buñ leen waroon a joxe 800000 suñ ne leen 400 mi ngi nii rek nañ ko jéem a engagé ngir lan jéem a yokk seen garaat pour ni ñi gis parce que en fois damay dégg ci ouvrier ñuy wax naan kii de maçon journalier musuma ko gis mu yor sànce loolu day maas day maas maçon quoi. mosoon dafa bëgg lii maa ko gañe lii sama sànce la daf may dal des fois man damay dafa may dal damay am benn benn force rek laay am boo xamante ni benn quarante mille lañ ma ci jox waaye naa ko téye ay 4 jours ñii lan ak ah, gars yi sama sànce laa yor léegi quoi. 4 mille laa jour 16 mille lay dikkee 16 mille la may dikkee 4 jours yi pertement daal di daal dikk parce que sama journée normal moo ko ci génnee 8 mil 8 mille 4 jours ak 8 mille 16 mille yi manœuvre bi pertement dikk na. te foo sa gën a tuuti ci liggéey yaa ngi dégg léegi nag Abdou ci yow laay ñëwaat tey euh, lu bëree bëree bëri loo xamante ni ñu ngi ko war a dindiwaat tamit ci maçon dañuy kii dafa ñëw sànq mu ni euh, ménébar bu ñëw dix heures wala dix heures et demi su quatre jot mu bëgg a wàcc pour man ménébar du naaje ki koy jël mooy naaje parce li ma remarqué man place su Alaaji sept heures wala six heures et demi laa fay fekk menebar yow maçon bi nga xamante yaa war a liggéey lu toog ba neuf heures wala dix heures nga ñëw jël ko te ku ne xam na ni heure maçon moom mooy xëy huit heures wàcc seize heures man li ma xam bi. man ngeen koo tolloole tamit def supplémentaire wala nga ni ko pousse ma ma eggi li benn demi saaku ciment mm. euh, ci yow laa koy mën a nattoo rek moom bu heure seize heures du jot wala trois heures et demi. day tourné rek du la tàggu de dem da gaase yeneen deux sacs wala daan la sa ci waaye mu jeex. am na meneen bar yoo xamante ne tamit boo leen yéen la cib sànq ba ngoon nga gañeeb sànq lu toll ak 800000 wala 1 million wala 2 millions waroon leen jënd benn plateau ceebu 500 jëndoo ko xëyloo euh, ba 18 heures wala 17 heures loolu tamit day xaw a doy waar. waaw loolu tax meneen yu bëri di si ci sànq yi yow nan nga dundee loolu nga ni euh, lii ma la wax moo tax. Ménébar di doxale noonu wala lan la ci biir chantier ba Ménébar boo jël tey suba mu bañ ni du xëy. waaw gis nañ ko ci liggéey waaw. ci njiit yi lay doon rek loolu boo ko gisee ci njiit lay doon rek waaw ndax nit ki nga xam ne nii xam nga li la war nit ku ne da nga fa am respect ci morom ji nit ki bu ko xëyloo 8 heures normalement 4 heures jotee war naa mën a wàcc bu fekkee 9 heures la bu fekkee tamit ci kow liggéey bu dox fu 4 heures jotee wala 4 heures demi war ngeen mën a wàcc. waaw mais waroo jekk ba 4 heures jot nga bëgg a gaas waat ciment wala da nga ko war a yokkal wala ngeen waxtaane ko damay dégg maçon du naaj mbak yaay naaj non loolu dëgg la moom loolu moom dëgg la ñun amuñu heure xëy amuñu heure xëy maçon moom maçon bu baax amul heure xëy waaw maçon mën naa xëy midi mën naa xëy heure bu ne mais yoonu liggéey 8 heures ba 9 heures ci maçon mooy heure xëy 4 heures mën ngaa wàcc ndax liggéey maçon dafa métti ndax amuñu pause te yoon dafa def dañu war na am pause mais comme amuñu pause fo 4 heures jotee war nga mën a wàcc waaw dal lu ji ba ëllëg ak toog ba 10 heures wala 11 heures nga ñëw jël ouvrier rek benn manœuvre euh, bu mel ni man ma soxla benn 4000 euh, ci sama journée nga toog ba 8 heures wala nga toog ba 9 heures wala 10 heures nga ñëw jël ma. wàññi sama 500 francs fay ma 3500 ci lu ma doon dàq bëgg a dàq 4000 francs nga yóbbu ma ba 16 heures bëgg ma yóbbu ba euh, yóbbu ma ba sama heure jot nga bëgg ma yóbbu 16 heures 30 wala 17 heures ma siisu foofu. bu boobaa problème bi ci yow mi nga xamante ni yaa war na jël ouvrier bi nga naaja la wala. meneen yaa ngi dégg ak lu mu mënti doon yaa ngi dégg dañoo fonkut comme comme comme wàllum xëy xam nga xam nga waaw respect xam nga wax na xëy nu 8h 9h yaa ngi dégg. voilà liggéey dafa mën day am heure. ndax yow maçon boo ko wutul heure tamit mën baat ba mu wutul heure. waaw foofu laay wax. bu ngeen bu ngeen amee yooyu noonu rek. problème day am ci chantier yi. waaw ñun ñëpp. waaw xam nga loolu xam nga loolu xam nga heure naam liggéey moom boo demee ba commencé liggéey boo xëyee fajar yaa ngi dégg 10h sax nit bu la fekkee 10h nga toog ah mun la sawaay looy def nga ne ko man def ma dara mun na kaay xëy yaa ngi dégg man na jàpp na man fibas takusan takkusaan war nga mën dem liggéey xey fa fa man la bet ndax nit man la soxla soxla urgent nga dem xëyal ku ñew yaa ngi atanka nak tant bar bo jël ab santé ngeen dem ba 4 heures mu war nga mu war wacc mom mom mom mom de yow yow sima bi nga gaasee woon de mu jël si raxas ko raxas na si bi de te yow pare yow gaasaas baa ngi non taxo raxas si bi dem jangu sol tubeyam nula saway sawaay gaaw fayam te sima bi jeexul ya ko war ah la nga xool ni yow mi bi yow dix heures nga xëy wala midi même boo xëyee neuf heures sax laa wax de même boo xëyee neuf danga da nga ne mi nee nga ngeen waxaale su dund quatre mille ciment bi gaz nga ko pare su jeexul da nga ko raaj loolu mooy sax maam bu doon bu doon ñun sénégalais ñun bu fekkee da nga liggéey nit li nga ciment bi nga daj woon gaz ko pare jeexut nga wàcc man nawloo tuma la su ma xëyloo yëfi dof la laa lay defloo du ma nawloo Senegal nak ñun fofu lañ tollu motax dañuy defante yaay deg par rapport ak ñi nga xamanteni yenen yenen pays yi nga xamanteni ñom ni ñoom dañuy fonk seen liggéey ba ba kan ni so démé ba li ngay liggéey dess ñom seen seen seen xol dañuy liggéey xol am ñoo xam ne wuñu xol xam nañu lañu liggéey ki dafa bëgg ray way xaarama xaarama def ni lolu lañuy ñuy liggéey waaw mi bar la nak man mi di wax yeen wa mine bar la waye tamit suma wa wa xaarama ñew xaarama ñew man su may liggéey nit man su may liggéey nit su ma gazee des fois dama naan la sax sa bu fekkee ñaari si yow moo des dama naan la sa waay li ngay def li ngay def fekkee përiwul est ce doo dajji saako bi ñun defaat kii ba man ba fii ba timis man garaawul quoi dañ may yërëm dañ may yërëm sax. mi nee bari laa man mi nee bari laa man waaye waaye waaw waaye dama bëgg dama bëgg a lancer beneen beneen beneen kii mooy président mooy réew mi maanaam ki nga xam ne mooy président ah man na jël en charge comme ça maçon bi ñu ñu ñu ñu matériel lépp loo xam ne ni képp koo xam ne ni doonoo maçon yaa ngi dégg ah ñu teg la sa as ne la yow mii doonoo maçon doo liggéey waaye loolu fenn dong la amee muy mel ne tailleur bi dem ba lig ba jàng métier ba man ko ah dem déposer certificat travail fu mu dem ñu koy yow boo ñëwoon gañ ab sab sànce nga ne ko yow dama laa bëgg a jël ana sa ana sa certificat travail foofu la lay mën a sukkandikoo jël la mais loolu certificat travail bu ko ñëpp ko woon président jàppale leen si ah maçon yaakaar naa ne du du tumuraange sunum réew te maçon lu am valeur la maçon maçon dafa metti te maçon fii nii yaakaaru naa moo war a gën a teg moo war a yéeg ci euh, te mais maçon yi sant bi nii ay pauvre lañ ci boo xoolee ñi gën a pauvre ay maçon lañ waaw dëgg la euh, bu doon liggéey bu metti mooy tax a am waaw ah, kon maçon multimilliardaire lay doon. non non bu la yëpp mu yem ci maçon kese da nga naan ouvrier Sénégal la ñu respecté wul. ouvrier Sénégal yëpp. la ñu respecté waaye nag euh, man man li ma remarqué li ma remarqué. ouvrier yu bëree bëri maçon ni mu ci négligé négligé ci diplôme dafa ëpp. Oh, parce que. waaw non waaw lool lool loolu am na yàlla bi mu bindee bi mu sàkkee mbaam moom mene mene ba daj teg loolu kenn werante wu waaw mais dafa am lu ñu négligé tey mas bu nekk jàpp naa ni ki lay jàngal ki nga xamante ni moo jël engagement que ni ñii ci sama loxo lañ leen teg bala nga jël engagement wo yow sa diplôme warna na tege ba képp ko nga xamanteni ni na ci yow euh, bëgg génn buy génn tamit mom diplôme am la yor waaw mais fi Sénégal li problème bi attestation sax soo ko euh, pour nga am ko problème la. Ah. waaw da ngay gis ki jangal ki ki jangal ki bam nek 10 personnes wala 15 personnes. kenn du ci am attestation. tay nak bo beugé tok tay nga tok comme bonjour rek nga ñew amul diplôme. doo gérer chantier te qualification ci chantier yi ñi am diplôme ñi ko ñi ko amul ñoo ëpp ñoo gën a qualifié waaw man man débutant laa ci waaye entrepreneur jël na ma ba jël na ba tey dem taxawe ne te li may def xamu ci dara waaw te ay millions la gën a chantier ay millions tay buñu wax tay buñu wax diplôme ay formation ci école buñu wax formation ci école tay bar nañu génn école te birik mënuñu ko tek ci dara liñu def moy lire le plan hein fi val de redressement mo ci nek fi longrine mo ci nek hein fi amna chaînage fi douche la fi porte mo fi génn rek lañ xam ci bâtiment dimension bi 15 la wala 10 la loolu lañ ci xam c'est que bâtiment mo wa wa très bien lu leer kon après dañ ci jox rek nga add ci xam nga ci Louga. xam nga fu mu toll nii boo bi kii dafa wax lu am solo Minebar bi yàlla ba mu sàkkee mbaam Minebar si rek xam nga yow da nga wax lu am sens mooy Minebar boo amulee compréhension ak maçon problème day am chaque jour maçon moo gën a baax kuy baax maçon mooy yor ah, mooy yor mooy cent mille francs borom borom ndékk bi dina si lekk maire bi jaay gerte caaf dina si lekk borom banaan dina si lekk bâtiment moo bëri ay koor. waaw. waa xam nga damay dégg ñaa mbëru làmb mbëru làmb laa bëri. gerte jaaf moom mairie nangootuñ koo jaay keneen ku dul loolu nag xewe na loolu xewe na. non xam nga loolu moom. loolu xewe na. <laughs> ci tool la ñuy dëkk moom. ndax am na lu la waaw wi ma wi ma xamuñu ñëpp ay doomu nay lañ ñoo far waxewuñu ko cadre dara quoi comprends yéen ñu doon yéen ñoo far yéen mënoo leen dem bàyyi ñun tam mu ñu dem bàyyi leen on est ensemble waaye yàlla moom ba mu sàkkee mbaam mi ne ba la si teg. waaw xam luy problème bi ah. xam luy suñu problème ñun ñun ouvrier xam ouvrier xam la mooy problème bi mooy minebar bu xëy see huit heures ouvrier laa bu xëy see huit heures la war a wàcc bu xëy see neuf heures cinq heures la war a wàcc waaw am na ñoo xam ni ñu ko def yow yow ni la ñuy jëlee paak alaaj ñoo fekk la paak alaaj wala wala Kër Massar wala Liberté HLM euh, ci paak bi ñëw jël la dix heures nga bëgg a wàcc trois heures wala quatre waaye loolu xel na kaa nangu. ah déedéet waay déedéet xaaral eh, wuy ma wuy ma nekkuñu Guinée Sénégal lañ nekk xaaral ma wax rek. xam fii dëkku teranga la. fii lépp fii dëkku teranga la lépp waxtaan la. tey meneembar bi ngay jël ci. paak bi euh, tey soo ñëwee. Ah. war a wàcc 16h wàcc war a wàcc 17h. Ah. heure boo ñëw yow yaa naaje moom naajewul moom teel naa ñëw. li ci problème bi mooy ñàkk waxtaan moo ci am réeroo amu ci de ñàkk waxtaan moo ci am ouvrier boo ko fekkee mu toog en tant que ménembare boo koy jël ne ko heure bii laa la jël heure bii ma la jël lii laay fay heure bii laay wàcc non non non man man man <laughs> tey tey ménébar tey ménébar ma wax ci benn secret fii ci place alaaj xam nga alaaj ji na tax sax ménébar boo ko doon yóbbu ba 19 heures ngir jëmmi alaaj ji day dem man laa wax de man man ménébar mm-hmm. euh, di tedd lis man alaaji tax na maçon lu ma def ci chantier dinaa muñ xëy naa chantier ba ngoon non xëy non lu leer laa lay wax du ay caaxaan sal ndaalan du waxantu man xëy naa chantier ba ngoon wàcc maçon dagg ma saaga ndey te joxuma sama xaalis tontuwuma ko tontuwuma ko ngir ngir kan alaaj daa jeex na jeex na lépp day am ci chantier yi lépp day am lépp day am chantier li ci am daal mooy li ci am daal mooy ma euh, kii xaratu menembar bi nga fekk ci euh, kii bi pàkk bi di ko jël 10 heures jot na nee ko 10 heures la jël yaa ngi dégg heure bii laay wàcc moom su mënoon loolu nan la heure bii laa mën a wàcc boo ko jëlee 10 heures mun la 4 heures boo war na fay euh, diggante 10 heures ak 17h wala 18h bu nee la mënumaa wàcc 17 dina la wax 4 laa mën a wàcc 4 boobu xanaa li nga ko bëggoon a pousse ba 17 bu la neexee nga wàññi ni ko 3500 la lay fay lépp ci biir waxtaan la rek. ki nga xam ne nangul ba dem dem ki xëy 10h nangul dem ba 18 fayam par rapport ak ki nga xamante ni nangu na dem ba heure boobu waaw moom ki ngay jël doful ji ne jàpp xam na ni. ki nangoo dem ki xëy 10 heures nangoo dem ba 17 heures. nga faal bokkul ak. ah ay mineebar lañ. jox ma affaire moo la. <laughs> yow waxu ay mineebar. yow ay élèves yoo bëgg ay ay jiin lañ nga wax yow. élèves yoo xam ne ay jiin lañ bëgg ñooñu du ñu ay mineebar. sa waay dëggantaan bu xëy see 10 heures même bu ñu ko waxul heure bi nga xëy war na am xel na kii 4000 la may fay. kon temps bu ma toog rek liggéeyuma ko rek pertement day dugg ci moom loolu moo tax maçon ñaar maçon ay saytaan ay ay sàcc lañ loolu dong moo ko indi. saa man du ma jël 4 ma ñëw même bu ma naajee place alaaj ñëw fekk la fa midi sax yow amal xel na kii kat midi la ma jël 4000 la may fay ma dem moom ba geewee xel moom yaa a dawal sa bopp yow bu xaar ñu wax la ko comprend waaw beneen bi si topp mooy booy yi ñoo ñoo nekk boo yoo xam ne jiir moo leen tax a ak kap bu kap waaye booy menee ba liggéeyuñu waaye fee dem naan ndox fee dem jël kap dóor si bërigo ndox loolu moom xew yi gars taal benn excellence wala loolu dañoo war a dem joob too toog bi ñu toog place ah, toog bi ñu ah, fële Kër Massar place Alaaji Patte d'Oie Grand Yoff amul njariñ xam nga amul njariñ nga tey ma a jëloon benn yoon sama chantier nga nekk Minébar benn yoon boo sérieux dañuy continuer chaque jour di liggéey te xoolal imagine tey Minébar boo jël tey suba doo ko jëlaat kenn ngay jalaat la moo tax loolu dañoo sérieuxwul dañu bëgg xaalis ba duñ nangoo liggéey te ay booy ndaw nga gis ñuy Minébaru Minébaru dëgg da koy gis mu yàgg si chantier Bode mo yor caabi chantier ba comprend bon eh, non kii la sama gars li ngeen di wax am solo lool lool lool ci affaire bâtiment parce que parce que maçon dafa nekk loo xamante ni mooy mooy mooy entreprise boo xamante international la parce que da ngay gis élève bi su école day fa lay fi ruñ gis tailleur bi tamit yu amul dara wala mu bëgg day ñëw takkale benn journée 4000 am saa lu la wax lijjanti ay journée moo tax yéen yéen a war a mën a jàppalante sa waay li muy wax am na dëgg de parce que am na ñoo xamante ni manœuvre bi defuñu ko pour kii dañ ko def pour ut weccit mais affaire bi soo ko toogee kosalante wu ci liggéey di mën nga ci am xaalis am ci métier. comprendre nga te ko ci yoon yow ouvrier bi ngeen di déggoo saa lu la di nekkante ngeen ngeen yéen ñaar ngeen di jàppalante. saa lu ma la yéen di jàppalante. comprendre nga soo leen di jàppalante rek affaire bi day dox quoi comprendre pour man ouvrier ak manœuvre daanaka benn la quoi. Mhm. parce que man carreleur laa man carreleur laa xam naa sànce bu baax saa li mu wax xam naa ko bu baax am ñoo xamante ni dañuy ñëw sa ngi leen di jël sànce mais da ngay ñëw da ngay gaze te xoolal da leen diggante temps bu ndaw da ngay gaze balaa nga dressé mu ñëw taxaw na la maa ngi ñëw damay dem fii damay dem fe damay dem fee damay dem fee am loolu du yoon liggéey bi da nga war a taxaw parce que fa ngay jëlee sa bénéfice quoi. pour man quoi lépp war a rafet maçon ak manœuvre benn la ñoom ñaar kenn mënul dem sa morom. parce que manœuvre bi mooy gazer di jox maçon maçon bi di dóor comprendre nga xam nga bi du mën a gazer boppam di dóoral boppam dañuy dañuy rek man da ngeen a da ngeen a boole ñaari mbir yu bokkoon hmm. euh, tey meneebar laa fi nekkal quoi tey damay bàyyi maçon yi bële waaw meneebar laay doon <laughs> meneebar laay doon tey mais tey dañoo jël élève ba nga xamante ni situation jàpp na ko vacances yi ñëw na mu bëgg weccet kooku day ñëw ci chantier yi mais boo ko bëggee comparer ak minebar bi nga xamante ni yàgg na ci chantier rek da ngay juum waaw élève boo débutant ci chantier en tant que minebar soo ne ko jàkk war nga xam ne kii war nga xam ne kii waaw day am day am waaw day am day am étudiant bi ma la day am xam nga tax man la day am defal naa ma la xam nga tax déglu ma nañ nañ dégloonte étudiant bi waxuma la étudiant bi dama ne mm. Mm. dama ne ouvrier maçon mm. dafa doon loo xamante ni lu am importance la. ban dama ne la étudiant bi su demee ba jàng école ba war a lijjanti ay fournitures am ci maçon la koy amee. waxuma la bokkule mais am na yeneen maçon mën a bëri yoo xamante ni. ñu dégluwante ma ma ma ma daaneel. ma li nga wax d'accord ma daaneel. ma daaneel ma daaneel. xam nga tax ma leen élèves yeeg ancien ancien manœuvre yi tey. élève li nga koy jëlee journée doo ko jëlee ancien manœuvre journée non non non c'est pas la même chose eh c'est pas la même yow non bokkul bokkul bokkul ancien manœuvre ancien manœuvre mënoo ko ray ci chantier ancien manœuvre mënoo ko ray ci chantier waaw bëgg cee profité ak situation kër ni mel waaw waaw egli loolu dañ fa nga def loolu loolu loolu lu leer ngay wax foofu noonu ndax tey yow mën ngaa nekk benn manœuvre boo xam yaa nga ci chantier mën a bokk ay natt yoo xam nga teggi benn 100000 denc ko mën cee dépassé 3 jours 4 jours ki nga xam ne day profité ki benn 3 mois pour bëgg cee am dara kooku bu toogee benn fa ñaari fan da koy commencé yëg danaa muy gën sax xëy sur na 2500 li ma doon denc ma bañ koo laal xam nga du bokk quoi mais tamit euh, comme sa waay li mu wax tamit dama koy nangul foofu noonu tey maçon day toll foo xamante ni que tey man ngaa jël avance suba rek mën ngaa suba gannaaw suba nga am xam nga loolu tamit dalay dal du daa dangaa nga xëyal say moso ñu ne waa gi daa trian sàcc la naam fekk bu demul noonu soxla moo la dab mais tey mineuveur bi nga xam yàgg ngeen liggéey yéen ñaar am ngeen at wala am ngeen benn 6 kooku li la mën a muñal ki nga xamante ne ñaari fan ñett mënu laa muñal loolu kooku mën na laa xëyal 5 jours du fayeeku wàcce nga ko booy am 1000 demal nga reer ci ndékki si maanaam ki nga miinanteel benn koñ ñu yàgg ànd liggéey ay 6 mois boo ma joxee 1000 francs ni ma demal damay dem ndax xam naa la xamante nañu quoi mais ki nga xamante ana man ana yow ñuy ànd benn semaine rek nga bëgg maa deseel benn 4 jours damay bañ. xam nga loolu tamit da ci am quoi mais maçon bu nee maçon dafa triant rek maanaam problème mooy am ndax tey boo toogee benn 3 mois amoo chantier di daw journée di daw journée di daw ne ba dal ci benn chantier boo xam jox nañu ko 1 million 500 jox la benn 700000 feebar xam nga wala def benn opération wala dara ci yow la ci yaakaar nga yëkkat 300000 dugal fa. dawal sànc benn 15 jours li nga yoroon jeex nga laaj borom kër gi mu la daw na kat boo àggee ba niveau lente wala niveau séenage laa la war a joxaat nangam mënumaa génn xaalis jox la nga dem ci laaj sa benn copain mu abal la benn 50 mille nga dawaat ci benn 4 jours 50 mille yooyu jeex xam nga yaa ngi góorgóor di sa ngoor sa jom mais fu lekk nga wax ak minee bëri ni leen carrément xaalis amagul semaine bii di ñëw laa war a jot xaalis il a bokk benn koñ wala yàgg ngeen a liggéey nan am mais fekkee élève bi nga xam daa jóge ngumma géewal wala Thiès wala feneen pour ñëw bëgg a profité am dara kooku du la ko nangul bu subaa sax du ñëw day daw dem feneen pour wuti jiko ndax danaa waa ji damay tardé lekk sama xaalis wala détaay demee noonu ok ci li ëpp euh, mhm. ni moo ko jox chantier mhm. moo koy commandé ci ni muy décompté ci ni muy décompté si tey fondation temps laa lay jox mhm. élévation temps laa lay jox. Mhm. Mhm. Mhm. ma jox la nangam. ma war a jël. wala war a a jël loolu bu ko mu bàyyi mais di nga toll foo xam tamit nga jël loo xam ne ndax bañ a toog ndax bëgg am dara loolu day dal ku nekk. man daanaa woo fii mu boole ay boo yoo xam man des day ñëw arrêté ma wala mais dama leen naa buñ ma arrêté 11 sax dama leen di fay sur le 8000. suñ ko néew journée bi jeex tamit journée bi 8000 laa fay dal na ma la ëpp ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon alaaji mi xam na si dara booy dañuy ñëw xëy summeeku teg turéel ñaari yoon ñett ñëpp ñu dem ñu am compréhension xëy na ñu ne grand yàgg na noo liggéey man ak yow jox ma xaaju journée bi ma jox leen ko ñu dem ndax ñooñu mais ña ma ko def boo léegi mën naa leen a ñeneen xam ne accident de travail la ndax chantier la yoo xam ni dañ koy aaye dañuy profité pour gaaw collecter pour mën a gaaw def dara kenn ku ne mën a raw léegi mën na ñëw bi gaaw lool neex ci man miy fay léegi nag mu ñëw metti si man trop mais ñi xam ne yàgg nañu ñooñu dañuy am compétence ni ma jox ñu xaalis journée ñu mën cee dépense ñu dem ba suba mais xam ne dañoo boole tey ñu ñëw yaakaar gi seen journée ba buñu leen woole ñëw rek ne eh suñu 8000 da yaakaar naa ki tey amel naa sa waaye 3000 ma demee fay ko ci pare pour qui ci soxlaam là. day fekk wax li ci est yaa ngi dégg si dajaloo moo bari bari boo xam tey boo ko dee boo ko dee wax am na machine yoo xam tey dañoo trian am na machine yoo xam ne bu ñu war na jël bu ñu war na jël sànq 2 millions nga jox leen ko 5 millions du teenu triandé la ndax loolu dafa nekk seen deret dafa nekk ci ñoom quoi am na machine yoo xam ne dañoo jàpp millions bari mbaam ah, te tey ñoom li ñuy gagné ci sànq million bar ba xaaj ba xaaj bi gagné ko ci million bar muy daj ci sànq bi moom dajut xaaj ba million bar mooy liggéey bâtiment mhm. waaw mhm. mu ne bari bari kalaame mu ne bari dañuy ki la xam ki xam yaa ngeen liggéey mu xam ni mu xam ni paam mi mu xam ni paam mi ku jubla la mu xam ni paam mi ku jub la yaa ngi doon liggéey mosuma ameel cent franc damay fay. mais ki nga xamante ana man ana yow ngeen daje benn temps bu gàtt rek kooku du am ci yow confiance boobu yàlla bu la ko def nag loo xam ne yàggul dara day yaakaar moom maçon yëpp noonu lan mel ndax ñu bari dañ naan maçon yëpp ay triant ñu bari dañ naan téer yëpp ay triant lañu ñu bari dañ naan sëfoor yëpp ay triant bu ñu la joxee rendez-vous 4 heures xamal ni 18 heures la ñuy ñëw wala 19 heures. est-ce que dégg mais du ñëpp lu ma doon ne kenn ku nekk sa jikko ak la ngay def sa diggante ak yàlla tax léegi yow xam nga ko sa xol xam nga ko sa xalaat xam nga ko sa xel mais tamit jamono day jàpp nit dina def loo xam ne tey tey jii nii defu ko ngir triant defu ko ngir leen mais jamono moo ko jàpp jamono moo ko jàpp mais ñu bari dañuy jàpp ne kii dafa triant wala naafiq la wala dara mais yàlla xam ne bu ngeen antan benn at wala benn 6 mois di nga xam ne kii triant xëy na jamono moo ko jàppoon démb ca tey jamono xëy na bàyyi na ko tey moo tax man la am nañu trian dama leen di luyee bagage alaaji ñu xam na ma dama leen di luyee ay matériel xam nga saa waaye xamante nañu waaw loolu tamit am na waaw doxaan rek la ñuy def maçon yi doxaan rek la ñuy def sa waay sa waay noonu maçon yi la sa waay noonu maçon yi la waaw noonu maçon yi non attends attends attends dañ koy doxaan ne doxaan ne ko bu xaalis bi jeex ndi ko mënee bëri nag naan naan 15 naa la yóbbu waaw booy. yóbbu yóbbu nit quinzaine chaque jour mu war a fay ko daal quinzaine laa ko yóbbu. la booy loolu débat la moom débat la moom. booy. waaw dama lay laaj. yow boo bëggul jigéen. yow lan ngay bëgg yow góor yàlla. waaw dëgg la war ngaa bëgg jigéen. ñu ma sonné waaw da ngay def. ah na na nga fay na nga poytal chaque jour xaalisam ah mais topp boo rek aja yaa ngi aja gannaaw suba yaa ngi seen waaw. kon ma ba waaw yow ñun jigéen ñoo ñuy wër ñun maçon yi moo def waaw loolu dëgg dégg naa sëyu eh, maçon moom du tas ah jigéen baa ngi nii ci maçon la tase si dem. non mosuma ko dégg effet effet effet bi la. effet bi la euh, kontaan nañ bu baax a baax euh, ñu dugg euh, ñu dugg ci troisième partie bi. Euh, ñu ñëwaat ci rek deskos nit ñi dañ ci waxe ci deux versions ñi di waxe côté bi ñi di waxe côté bi descos moy lan descos ah yow doo ma ne <laughs> deskosu deskosu tay euh, dalay fekk ci santé oh, euh, ngay liggéey ba 10 h wala 11 h des fois sax mu ñëw ba ay ay ay 3 h yoy amul heure quoi uh-huh. mu arrêté la des fois dina la muñal pour nga éggli sa ciment des fois dina fa bayyi say bagage des fois du ko fa bàyyi man na dama gisee ci côté est-ce que jotul ñun maçon yi bala ñuy démarrer un bâtiment ñu am autorisation parce que des as autorisation lay lay wut ci bâtiment bu autorisation nga ni ko mi mais des fois des oh, deuxième la deuxième la deuxième mais euh, des autorisation dugg fii génn fi mu ramassé say bagage yóbbu borom kër gi lim la ci wax kat dinaa ko lijjanti sa matériel taxaw na ouvrier yi nga jëloon mënoo leen a xaajal seen journée li nga waxaale woon ak ñoom rek nga leen di fay est-ce que jotul tamit euh, ñu jógaat suñu bopp euh, avant ngay demaare chantier nga am autorisation lépp këyit boo nga xamante ni moom nga war am ci bâtiment bi rek loo nga xamante ni DSCOS na war a ñëw mën a tey wax ceeg yow euh, nga mën koo teel a lijjanti ci début bala ñu kii bala ñu kii yow liggéey naa benn sant ñu fekk ma fa arrêté ma quoi mais bi ma arrêté booy yi dañoo xaw a discuter ak ñoom foofu ban convoqué ma des ko ma dem fekk leen mais bu ma demee fekk naa fa benn centre ma bu ñuy wax seex Diop mu xamal ma ni ma que ni carrément na ngeen doon waxee fee bi ngeen ñëwee fii tamit ci ak dal la ngeen di waxee ndax àdduna moom coow lu mu rëy rëy rëy la lépp ak dal lay mujjee. est-ce que yaa ngi dégg mais xamal na ma Dakar. ci jëmmi boppam bu fekkente ne wan euh, dañuy wër kër yi nga xam amuñ autorisation kon kër yu bari dinañ ko daaneel bi ñuy liggéey amuñu autorisation construction boo xam ne mën nañ taxaw samp benn dee boo xam ne dina carré benn 60 carré ndax kër yu ci bëree bëree bëri dina ko titre foncé yi ay euh, bail la yi ay délibération la yi ay notification la ay kayit yoo xam ne lenn boo ki doon topp pour bëgg ci am droit réel pour mën ci am autorisation pour liggéey doo mën a am ba àdduna mais lépp lu mën doon day nekk arrangement rek ba nga am ko yaa xam maire ba nga nekk yaa xam aslem jaay yaa xam sikaab jaay la keneen nga arrangé ñu jox benn kayit boo xam moom ngay téye di ko liggéeyee bu maire ñëwee nga neexal bu des ko ñëwee nga neexal bu keneen ñëwee koo xam tamit kuy dox ci suuf la ku mel ne wàllu urbanisme ak keneen bu ñëwee tamit nga neexal waaye nee bu fekkante woon Dakar dañuy wër kër yi xam ne liggéey nañ est-ce que am na ñoo xam ne ñoom la ñuy woowee tubaab yi ñuul ñoom loolu da leen koy jaral autorisation jaral leen ñu xaar ko fii ak ba deux ans topp ko ba jot ko li war a jot lépp ba xam ne képp ku fa teg seen tànk da xam ne kii da leen di fontoo am na ñoo xam jaral na leen ko ñoom la ñuy woowee tubaab yi ñuul yi mais comme sama genre yi jaral na leen ni ñoom neexale benn cinquante mille benn soixante mille pour mën a gaawal taxawal seen liggéey rek def ko comme na mu gënee ñu def ko pour nekk si leneen loolu moom moo bëri quoi moo tax côté li naan ger bu fekk jógu Sénégal rek wàllu yoon dafa yomb loolu noonu moom moo fi am quoi. ndax man dan maa convoqué des ko lu mat quatre fois cinq fois ci ay liggéey yoo xam ne dañ ko doon aaye ndax fee nekk asilem moo ko dagg jaay ko ay terrain depuis 2002 ba léegi. mais dañoo dem ba 2019 bi lébu yi ñëw fi nii asilem bi mu koy jënd seen maam da leen a deseen ay milliards yoo xam ne ko kon ñoom itam état leen a jox suuf si. fekk booba seen kayit dugg na euh, si yoon pour ñu war koo topp lijjanti mais dañ leen a xaarloo. mais xaar bi nag dafa war a yàgg dafa mën a yàgg mën naa dem ba Macky Sall jóge fi ba keneen toog fi ba jóge fi aslem tamit ni ay client gaaw leen ngeen dem sécuriser seen ay terrain comme ku mun leen a autorisation pour mën a pour liggéey loolu moo waral des ko si di dox ay tànk di dox ay jéego ba xam man jëlee naa ci xam-xam boo xam ne ci ñoom bu lu woon ak loolu noonu man mën na maa nekk si bâtiment ba jóge ci te loolu noonu du ko xam mais centre doon liggéey nañ ko ci autorisation kon kër yu bëree ba bari ñi da dañ koy daaneel ren tamit. Mhm. ci autorisation gese ci euh, traitement bâti. Mhm. am ñoo xam ne sax dañuy dugg si cité bu bees. Mhm. duñu am autorisation duñu am plan masse. ba pare bëgg a tracé. foofu tamit est-ce que dafay arrêté. dafay arrêté ci ouvrier yi tamit ci maçon yi. waaw waaw xam nga maçon bi moom ki yor xaalisam nangoo jënd feer ak ciment jël suuf mag lépp ñëw nangu laa jox avance ñu liggéey yow da ngay futteeku rek liggéey ndax yow kenn du la ci yóbbu kaso kenn du la ci yóbbu police kenn du la ci dóor kenn du la ci saaga arrêté lan lay wax nga arrêté xëy na nag nga wax leen wax ju naqari yoo xam yow yaa wax ak ñoom leneen loo xam sa cadre bopp la ñu jël la yóbbu wala leneen ak leneen mais yow amoo ci benn faay. Mm-hmm. liggéey boo mm-hmm. mm-hmm. biñ lay wax ni la tracé joxuñ waaw loolu day ñëw ba ci cadre modification rek xam nga tey ku ñëw fekk R plus nga koy modifier pour dugalal ko ay dee di dagg ay poté di dugal xam nga foofu la risque waaw mhm. euh, mhm. na 150 mètres carrés wala wala 150 mètres. mais am na jëfur yoo xam ne xamuñu loolu.

bi tabaski bi gàmm ba desee semaine man loolu dal na ma jox na ma plat boo xam bi ma ko jëlee ma ko génnee damay jël ci mbedd mi 1 mètre presque mbedd mi day jeex mbedd 8 mètres ma ci jëlee 1 mètre 50 des moo ma léegi dañuy jox plat boo xam sax du normal mais man fexe naa ba gagné sama xaalis ba liggéeyee ko noo xam ne nee naa borom kër gi tey bu boo demee bay def sa fondation wala leneen lépp loo xam yaa ko moom bu la neexee nga mais moom xam na ni li ma wax moom moo gën a yanu maanaa ba mu fa indee ku ni wax Abdou Diouf koo xam bureau aslam ni rek bi mu ñëwee da ko ne place ko toppee tey du liggéey yow yaay xool li nga xam si ni que jaadu na ci sa morom mi nga xam ne tabax ni ngeen sësaloo nga war a mën a natt mbedd mi xam ne mbedd 8 mètres la nga bàyyi nga jël li nga moom nga ne loolu doo ci am benn problème mais tey dama la xamal ni ki nga xam ne day dem di modifier ay bâtiment kooku tey xaarul autorisation leneen na maçon yoo xam boo joxe R plus 3 bëgg leen dañ leen li àdduna jëraluma ko quoi mais am na ñoo xam ne tey bëgg xaalis ak yeneen détails dina leen si dugal ban ni man nan ko dugg ci duggeen boo xam ne tey loraange mën na leen cee fekk maara day taali loolu tamit day am quoi voilà merci beaucoup. sa kon ci Descos moom ba xam nan nga dundee Descos yow du ñàkk ni yàgg ngaa tase ak ñoom parce que li naa jaan suuf yi tànk ci su yàgg yàgg tase te ñoom dafa mel ni ñoom maçon yi rek la ñuy wër liggéey yi bëri na waaye li ci ëpp maçon yi leen arrêté nañ ma